saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gris Bordeaux ma ne day dellu si waat signé retouram Gris Bordeaux sur le point de signer retour sama combat léegi tey mu taxaw loolee la Gris Bordeaux xamle képp kuy béggee Gris Bordeaux te yaakamti woon a gis ma tooyal sama xaftaan commencé la béggee te xam ne Gris léegi mu ñëw mon combat sera bientôt ficelé moom Gris Bordeaux adversaire bu nekk ci kanamam waajal ndax moom pare na wax na ci Boy Niang 2 wax ci Forza wax ci Serigne Ndiaye 2 wax la mbalakat la loolee la Gris Bordeaux xamle naa ko mu naan ma mbëru troisième âge la bu ma demee Sénélec du ko tontu dara farceur la day wax gaay di ree animateur la jàppe boppam fu mu toog kenn du ngem la mu wax ca Forza mooy dafa war a bàyyi dóor ngir mu mën a am combat lamb ji boo nekkee dóorkat ab xeexkat kenn du la jël ñii année balance ña ca ëpp mbëri xeexkat yi lay doon mbëri dàq xeex ci lamb ji pour nga wutal adversaire day jafe Forza la ma koy conseiller mooy bu bëggee combat faaw mu bàyyi dóor yi la mu wax ca Serigne Ndiaye 2 mooy am na un énorme potentiel Serigne Ndiaye 2 am na ay bokk na ci suñu espoir ca Fass il mérite tout moo xam ne bu kenn ci waa Fass amee combat dootul yendal dootul fanaanal dana la jàppale ci kaw jàppale la ci suuf ba ñu ko laajee ca rakk ja Gris la mu xam mooy mbër mu fi bëgg def carrière faaw nga respecté entraînement yi tout lutteur qui ne prend pas les comme son ami ne fera pas mbër mu ci jëlul entraînement yi def ko sa xaritu xol jël entraînement yi def ko sa àndandoo sa jegeñaale jël entraînement yi def ko sa bras droit doo def carrière te nit pour nga réussir il faut nga respecter gone te ba mu duggee ci làmb ji ba léegi mu ngi doog am défaite waaye bu bëggee def carrière faaw mu respecté entraînement jël ko au sérieux fa mu jeexale mooy du yàgg tuuti ngeen dégg na Gris Bordeaux am na combat incha allah j'ai espoir que d'ici quelques jours mon combat sera finalisé foo dégg finalisé xamal ne combat ba ñu ngi koy dox waaye dañoo juboogul ci ay kàddu ña juboo ci ay kàddu ba fa séenee teg seenu projet mooy Ouzin production projet 300 production yi litre sans frappe lañ ko fas yéenee def ay combat lay doon waaye bëree simple la ñuy première journée bi ñu ngi ko jàpp ci mois de février ci Adrien Senghor bi les tournois 4 yi nekk ci Dakar lañ fa ciblé département de Pikine Guédiawaye Rufisque ak Dakar département bu ci nekk danañ fa amal journée journée bu nekk mbër yi danañ leen fay kase te dana am mise ngir ku jël final bi bu ñu jàllee ca double moteur dañ frotté au meilleur damaa daan ay champion kon sama xel war naa nekk feneen fu dul ci Mama na jël yoonam rek continuer di liggéey xëy na bu ñu làmb boolee danañ bëre ña làmb boole ñu war a bëree la 11 janvier ca stade Iba Mar Diop mooy diggante Bébé Bismi ak Ada àllarba bii ñu génn lañ doon amal seen face to face foofee ca Rufisque ñaari mbër muy Bébé Bismi Ada ku ci nekk wane nga sa bopp di xaar la 11 Bébé Bismi ne Ada ci défaite rectifié bébé comme que moo appovent lu ko neex na wax en bu arbitre sifflé ba génn suñ diggante dana xam ndax dana am ndam wala déet bu ñu jàllee ca lit sans frappe ba booy fay tàmbali na année bii jël nab tournoi terrain gaal gi bu le premier janvier bii ñu génn moo ko jël le 3 ba le 6 janvier ñu nga jëm ca Diofior ci gala rëy fukki nag ak benn ak 330 000 fa teg le janvier poussière ba ñooy bëre le 4 janvier poids ya ñooy bëre le 4 agogo dana jàkkaarloog Thielly combat bi ni mel Idaly ñi ngi moo ko taxawal dimanche 5 janvier ca Iba Mar dana jàkkaarloog Scorpion Jax production moo taxawal li ni mer ci mbërukaay baax ak ñàkkurab jërë ngeen jëf mbokk yi li ma li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah